seen émission Actu Rewmi tey altine fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ñu leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp saa su nekk ci àdduna si fépp muy Sénégal muy feneen donc ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ni ko defee saa su nekk rek seen émission Actu Rewmi ñuy waxtaanee wàllu actualité biir réew mi ak bitim réew ko defee saa su nekk si ànd ak sama chroniqueur nga xamante ni mooy Jean Fall laataa ñëw ci li nga xamante ni moom mooy thème yi balaa da koy bàyyi mu nuyoo monsieur Fall ñu ngi leen nuyu bu baax ñu ngi lay fay Omar di nuyuwaale suñu techniciens yeeg cadreurs yeeg euh, euh, ki nga xamee ne moo di caméraman yi. Ah, waaw ak euh, internautes yëpp. Mm-hmm. waa namoon nañ leen nag parce que actu réew mi moom dafa nekk li nga xamee rek jàngat boo xamee ni moom la ñuy wax bataaxal bi nga xamee ne askan bi moom la ñuy dugal ci biir. Euh, internet bi pour que rek euh, sop euh, kii xalaat yi yokk xalaat yi. voilà yokk xalaat yi ak li nga xamante ni moom mooy hmm. actualité ñu daal di koy décortiquer hmm. jox si li nga xamante ni moom mooy suñu point de vue comme ni ñu ko defee xamante ni dinañ ko waxtaanee tey bokk na lu njëkk moom mooy inondation yi nga xamante ni tàmbale na waat ci biir Sénégal ak ci biir Ndakaaru rawatina fa nga xamante ni mooy Kër Massar jamono ji ñu ngi dund lu metti waaye tamit dinañ wax ci coowal primo votant yi ak coowal li nga xamante ni moo am ci wàllu inscription yi am ci li xamante ni moom mooy kayitu juddu yeeg yu ni mel ñu wax tamit euh, ci beneen wàll li nga xamante ni moom moo ñeel na am euh, fa nga xamante ni mooy Afghanistan ci ay coow ak lu ni mel loolu lépp nag euh, nekk tey ay yu bëri yoo xamante ni dinañ ko waxtaanee tey mais laata loolu rek ñëw ci li nga xamante ni moom mooy à la une de Rewmi Quotidien ci njëkk wax nag moom mooy Moustapha Diakhaté mi fës ci Rewmi Quotidien di wax ne ce qui me déplaît chez Macky wax ne nag il est l'alpha et l'oméga pas de rapprochement entre nous deux je n'ai pas démissionné de la fondation Servir le Sénégal ba léegi ci réew mi quotidien ba léegi nag AstraZeneca Sénégal jot lu toll ci cent quarante mille cent soixante doses ñu ne Sénégal a reçu cent quarante mille soixante doses AstraZeneca ba léegi ci réew mi quotidien accident à Kaolack un camion malien tue cinq personnes euh, toujours ci li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu réew mi quotidien forte pluie à Dakar la banlieue euh, patauge ñu jeexalee ak réew mi sport ci li nga xamante ni moom mooy euh, ONCAV mi exigé li nga xamante ni moom mooy passe sanitaire bi euh, ba léegi ci réew mi euh, sport ñu wax ci CAN 21 bi la CAF dévoile les chapeaux pour le tirage la liste du Togo contre le Sénégal Afrobasket au Rwanda Boniface Ndong sur les derniers réglages loolu moo nekk li nga xamante ni fës na ci quotidien bi di réew mi quotidien kon nag ñu ngi defee saa su nekk rek ci actu réew mi ñu ubbeekoo ak li nga xamante ni moo ñeel wàllu inondation yi Dakar ah, taw nag li nga xamante ni mooy dimanche bi ci ah, li nga xamante ni mooy fajaru samedi bi donc mu nekk taw bëri boo xamante ne fi mu nekk nii jafe-jafe yi tàmbali na waat ah, fii ci Dakar ak fi nga xamante ni moom mooy banlieue bi rawatina donc wax nañ sax am dëkk yoo xamante ni tamit nawet bi xaw na faa yàq tuuti fu ci mel Touba Ndaamaatu ak ñu mel donc yow ban na jàngat nga gis ci jamono ji ñu doon wax ne jël nañ ay milliards def ko ci wàllu gestion inondation yi teewul euh, diggante daaw ak ren inondation yi ñëwaat ba andiwaat ay jafe-jafe euh, ci fi nga xamante ni moom mooy Dakar rawatina fi nga xam ne mooy banlieue bi. Mor dina kontaan ci euh, tontu ci sa laaj bi mais fi may dàmbale rek moo di bët bu toj. ndax depuis bi taw yi commencé ak inondation yi commencé ci euh, Ndakaaru ñu ne la schéma directeur ak ni nga xamee ne mooy canalisation bi ak euh, jël nañu sept cent et quelques milliards war nañ ko éditer milliards yi di dugg di dugg di dugg dégg nga te tey jii tey la wàllu gën a ay dégg nga 88 millimètres rek dégg nga mu am genn wàllu population Sénégal yëpp wala région de Cap-Vert yëpp nekk ci ay problème fa weer yële gis ngeen ministre bi nga xamee ne moo yore woon affaire euh, inondation yi dégg nga ak euh, bassin de rétention yi ñu wone ci télé yi fu nekk ñu jël puukare defar nañu lii defar nañu lii te tey jii booleeg jafe-jafe bi nga xamee ne ci la ñu nekk ci wàllu mbas mi jafe-jafe yi nga xamee ne ci wàllu yokk prix yi jafe-jafe yi nga xamee ne ci wàll li nga xamee ne wér yaram bi ñu daal di encore une fois ñu delloowaat buum ca boy boy ga te ba tey jii amul lenn lenn lenn lu ñu mun a indi comme alternative lu dul rek dégg nga ñuy gis ne euh, politiciens yi ñu ngi réveillé de leur cendre dégg nga di jafandu ci affaire u euh, révision électorale ay affaire u élection bañ a fàtte li askan bi di dund mais jafe-jafe yi pourquoi moom muy muy continuer de perdurer parce que on avait dit ko jël nañu toll ci moom moo nekk fi euh, nga xamante na fëgg dënnam ne inondation du amaat fa nga xamante ni moom mooy Kër Massar ne Kër Massar taw bu ndaw taw ba na mhm. euh, ba fi xamante ni moom mooy yenn localité sax amatul euh, yoon pour ñu jaar fa donc est fi nekk ni on joue nga xamante ni moom mooy moom mooy bopp sénégalais parce que à fois ñu solution jël ay milliards ne def nañ ko si mhm. te booba léegi mu ñu fexe ba régler problème inondation rawatina fi nga xamante ne mooy banlieue euh, comme li li nga wax rek moo di que ni da nga fois da ngay da ngay mbir mi ci manque de respect de sénégalais manque nawloo sénégalais yi euh, taxaw. ci première émission bii nga xamee ne maa ngi la ko doon wax neewoon naa la ne euh, c'est le flu total ci Sénégal ba nga xamee ne kenn xamatul kuy wax dëgg ak ki nga xamee ne waxul dëgg chaque jour gis nga bi ñu demee ba nga xamee ne inondation yi ñu ngi koy wax boo xoolee ci yenn euh, audiovisuel yi yeeg yu yi wax nañu ci rek bàyyi noonu mais ñeneen ñi ñu ngi jóg dégg di jox ay parole ñi nga xamee ne ñooy politiciens yi dégg nga pour ñu teer seen ay këral pour que ñu daal di taxaw indiwaat beneen débat boo xamee ne il faut que sénégalais yi refuser dégg nga indi débat débat de bindu naa binduwuma dégg nga indi débat wu am naa extrait aw ma extrait parce que le problème euh, boobu nga xamee ni mu ngi bëgg a problème mu inondation yi euh, problème mu infrastructure yi nga xamee ne ñooy évacuer les eaux de pluie dañ ci lajj lajj boo xamee ne xëy na dans certains endroits mun dañuy ñëw ne la fii nii defar nañ ko xaw na dox mais fa ñu waroon a def ba nga xamee ne ay nit dinañ fa toog ay weer di tëdd ci ndox mi feebar jaan yi nekk fi ak rab yi dégg nga léeg nga gis ñu daal di euh, ay meurtre sax am fa ci euh, maison yi nga xamee ne dañu leen commencé di tabax bàyyi leen noonu ay bandi dëkk fa dëkkoon fa léegi daw nañu dégg nga euh, li ci nekk yëpp mooy li ma wax ci njëlbeen bi manque de respect bi nga xamee ne ñi ñu jiital ak suñu njiit yi moom la ñu am ak ni nga xamee ne duñu euh, amuñu euh, dañuy yaakaar ne sax amuñu sax rusukaay ndaxte boo waxee nit ki lu dul dëgg war nga mun a amaat kersa pour dellu soit ci moom. foofu laay waxee mais wax lu dëgg est-ce que nekkul aussi ne si ñun la parce que lu toll ne Kër Massar ñu jëloon lu toll ci cent milliards waxoon ne def nañ ko ci ne inondation du am ren ba taxaw fëgg seen dënn man foofu laay waxee. Mhm. ñu jekkaat jekki euh, mel ne comme si. dara xew 700 milliards yooyu daal dara xewatul bàyyi nañ ko te ba léegi ba léegi mu mel ne euh, ñoom ñooy def sa mbir yi parce que benn instant ñu ngi ko doon wax ne euh, Kër Massar ñi ngi def li nga xamante ne mooy ay ay liggéeyaat te xam na ne inondation baa ngi ñëw hmm. euh, nawet baa ngi ñëw te forcément day am impact ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy hmm. taw bi donc

Euh, comme ni nga ko waxee 700 euh, milliards yi ak euh, fëgg si dënn ba ñëw ne def nañu lii def def nañu lii defuñu lii loolu yëpp li nga xamee ne moo lalu ci suuf mooy li nga xamee ne comme question nga ma laaj man fi ma toll nii dama nekk ci jox la réponse que ne réponse ràng moo leen dina rayoon ou bien ñu jëlee leen fi indi ñeneen ou bien rek population bu ñu demee ba sonn danañu wut pexe. muy ut pexe ut pexe bi ci ci ci ci ci ban fànn parce que euh, fu ci mel ne Kër Massar. foofu laay gën ak fi nga xam ne mooy yëmbal sud. am na côté yoo xamante ne dafa am façon gestion bu ñu defoon li nga xamante ne moom mooy inondation yi muy def ay euh, moyens yoo xamante ne ndox mi day dem ci fu jëm ci wàllu euh, wàllu bassin yi gu mhm. ñu ne bassin yi Abdoulaye sa part ak leen yi nga xamante moom mooy kii ñoom ñu vont proposer autre chose. Mhm. non seulement li ñu proposer doxul mais. ça ça intensifier li nga xamante ni moom mooy wàllu inondation yokk yokk yokk dafay yokk seen coono yokk coono bi yokk coono bi la yokk donc état bi fi nekk nii ba léegi waxagul dara lu leer ci wàllu inondation yi leeralaguñu sénégalais yi ci wàllu 700 milliards yi donc est-ce que fi mu nekk nii xaatuñu sax euh, amoo yaakaar ne fi mu nekk nii dina amaat beneen genre soulèvement bu amaat ci côté ñi nga xamante ne fi mu nekk nii ñu ngi leen di pousser vers vers euh, mur bi comme lañu naan nit ki boo ko poussé ba si ba si mur wis bi euh, di dina fi. mooy li ma la wax rek que Euh, l'effet de ràng yàlla bu mu yàlla bu mu ci bu mu ci am am yoon ndaxte sooy wax di wax di teg du nekk dëgg di teg di def di ay milliards di ci dugg am ñenn ñu ci riche ñenn ñoo xamee ne bu ñuy euh, buy taw ñoom du ñu yëg mbir mi su demee ba nga xamee ne population bi excédé na la fay mën a xew yàlla rek a xam waaye li wóor moo di que ne euh, lii dafa yàgg Sénégal dañuy wax l'effet de pourrissement la ñuy def tout temps dañ lay bàyyi dañuy def benn affaire ñu xam ne lii munuñu ñu daal di ko bàyyi avec le temps di ko bàyyi avec le temps loolu la muy juri ëllëg yàlla rek a xam mooy li may wax tous les jours que ni politique boobu d'assainissement boobu ñuy doon def noonu politique d'évacuation des eaux euh, de pluie yi ñu doon def ñoom xam nañ ne affaire ba doxul la preuve gis nga ma rebondir ci pour euh, euh, euh, dénoncer li nga xamee ne rek moo di les travaux les ouvrages yi nga xamee ne terre bi ak yi nga xamee ne moom la kii bi di def ñu bàyyi ko noonu BRT bi bàyyi ko noonu mu daal di nekk nag ay disposition gene yoo xamee ne kenn xamul lu muy nuru dégg nga ñoom ñoom ñu daal di ne teg mm. boo demee ba nga xamee ne yaakaar nga ne tey jii léegi saafara euh, léegi jàngoro population bi saafara bi kii ñu daal di jóg ne la na ñu dem wuti ji ay kii pour bindu mais les élections n'ont jamais donné la à manger aux gens dañuy indi ay nit ñoo xamee ne ñoo ñu gën a mën a warax la ñuy indi sax ak yooyu lépp de plus ci wàllu li nga xamee ne man moom lay ke moom lay xeex moom lay kaas moom lay attirer attention population yi moo di que ne bu ñu fexe ba ba politique yi de ressusciter de leur cendre demoon nañ ba nëpp nëppa leen nañ fa toog am na nag li nga xamee ne moom lañ daan wax toujours que ne Sénégal amatul administration ci mairie yi collectivité locale yi war nañu mën a toog organiser wu defar benn fichier boo xamee ne pour l'avenir mm. moo di que ni à partir de maintenant bu fekkee ne euh, nit juddu na Sénégal ñu daal di def li ci war ak disposition yi nga xamee ne ñoom lañ leen di mën a euh, catégorie euh, répertorier pour le futur. Mm. fichier bi nga xamee ne parce que am na mairie yoo xamee ne amatul registre amatul fichier amatul dara. Mm. ñooñu ñu xool naka lañ leen fexe ba wutal leen ay euh, extrait de naissance ñi may wax moo di que ne mooy adolescent ak école yi nga xamee ne ñu war nañu def ay examen war nañu def ay kii te amuñu bulletin de naissance. yooyu ñuy wax ne dañuy def ay euh, euh, kii foraine fet foraine pour euh, bulletin de naissance extrait de naissance yooyu dafa dafa doyul li nga xamee ne moo ci nekk moo di ñu bàyyi ñu bàyyi font bi ak foyer askan bi foyer askan wi est-ce que est-ce que askan wi aussi ñoom ñoo nekk ay fautif parce que li nga xamante ni moom mooy ngay ñuy construire dara ci ci kii bi mu mel ne demoo dem ñu def li nga xamante ni moom mooy Euh, visite bi xool ba xam ni ñu ko defee baax na parce que Sénégal bay na lu ñuy defar ay infrastructure du jaar yoon euh, fu ci mel ne Touba ñu ngi dund li xamante ni moom mooy euh, inondation banlieue ñu ngi koy dund fenn ak fenn ñu ngi koy dund est-ce que nekk aussi ne suñu gestion affaire affaire infrastructure moom moom moo am défaut moo war a à chaque fois bu ñu defaree dara mu andi jafe-jafe bu ci mel ne tël yi tël yi defar benn un deux ans mu toj yàquwaat inondation continué waat est-ce que ne ko état kii ñi nga xam ne ñoom la ñuy defaral aussi amuñu responsabilité mbirum bu ñu defalee dara yow nga ni nañ ñëw defal ma diagnostic xool ba xam baax na wala xam nga euh, ay ouvrage ak ay tali soo koy defar dafa am cahier de charge. Mm. cahier de charge bi dafa am ay techniciens yoo xamee ne ñooy taxaw. Mm. étudier sol bi étudier le poids wu oto yi ci daw. Mm. étudier euh, durée de construction bi ñaata année la ak kii yu mel noonu par rapport ak li nga xamee ni moom léegi seen gis nga dafa am lenn loo xamee ne il faut que doon naa ko wax fii ñuy ree am na ñoo xamee ne sax ñu ngi may wax naan ma mais vraiment euh, yow c'est euh, intervention jëkk yi nga def c'est bien c'est machin gi des comme ça yooyu yëpp man damay def rek attirer attention que ñun askan bi ci boppam balaa ñuy yegg ci fi nga xamee ne dañuy xalaat parce que boo boo éliree nit pour yebal ko la ndaw lay doon mm. bu fekkee ne moom moo deful liggéeyam wax naa la fii ne am nañ ay armes de carte d'électeur yu redoutable pour dindi leen mm-hmm. ndax ñun dëkk bi dafa nekk ci ay chart xam nga par exemple bokkul ci réew yoo xamee ne bu fekkoon ne ñoom dugal nañu affaire bi fi gis nga bërki démb yaa ngi gis ñu ngi ñu ngi traduire euh, premier ministre Thaïlande ak kii yooyu ñu ngi leen di traduire ci ay corruption dégg nga bu Brésil bi moo gën a fës président de la République boo xamee ne gis nañ ko mu daal di euh, euh, ay luubal ñu jiiñ ko ci ba tëj ko ci kaso gis nga yooyu yëpp dafa nekk ci suñu réew yi yeggaguñu foofu te Euh, mënuñu taxaw di wax fii ne leen ne ñu leen jóg dégg nga taxaw ñu marché dégg yooyu marché nañ ba sonn takk nañ brassard ba sonn rien ni fi ñu toll nii moo di que ñi ñu nekk ci kii bi ñoo lajj dégg nga lajj ba ñu lajj nag am na fenn foo xamee ne am na bërki démb maa ngi dégg euh, ay nit di ma wax ne ma gis nga état bës bu président de la république daal ne dinaa génne dix milliards mu am ay kuréel yoo xamee ne dañuy constitué wu autour de wax boobu pour xam dix milliards yi naka lañ koy lekkee ñoom mm-hmm. loolu defe naa ne euh, c'est connu maintenant mm-hmm. alors bu ñu demee nag ba dix milliards yi ñu daal di ko déclenché nga daal di gis mu am ñoo xamee ne dañuy taxaw pour lekk ko ak yeeg yooyu man ngi loolu yëpp ce sont des choses yoo xamee ni euh, di wax duñ bañ lañ ci mun a am duñ ci tàyyi di wax ne Eh, alalu mbooloo alalu askan dafa laaj dégg nga ku ci nekk di def sa aqulaay taala am na réew yoo xamee ne balaa ñu lay nommé da ngay teg téere dinga gëm dégg nga nga daal di ñëw taxaw bu fekkee ne eh, yow defuloo la nga la ca war ñu daal di la jël jaarale la la yoon wax ak yooyu fii am na yoon waaye yoon bi eh, ñaari voilam mm. daf ci am ba ñuy nekk di wax naan Karim Wade lakk na fi lii Karim Wade def na fii euh, yi def na nii kii ak yooyu dégg nga dañuy gis président de la république ba daal di ne am na ay dossiers yuñ ma jox. ma teg ci sama loxo. donc bu amee dossier yoo xamee ne moom def ci teg seen loxo lu tax moom mënul jël sama dossier mu teg ci loxoom pour que ma bañ a sonn pour am cent francs mmh. waaye dégg am ñoo xamee ne ñu ngi fi nekk dégg nga. boo leen kiiyee sax ñu ne la dara duma ci fekk dégg nga euh, booleeg euh, boo àndeek man sa ceeb tooy soo àndul ak man nga yéey xeer. Hmm. loolu moo am Sénégal boo ànd ak man yéey xeer wala boo àndul ak man euh, mooy loolu donc ñu dem ci li nga xamante ni mooy deuxième sujet bi rek jëm ci li nga xamante ni muy wàllu primo votant parce que di nga ko boros sànq ci wàllu problème yi am ci mairie yi gestion fichier yu ni mel donc mu mel ne jafe-jafe am na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a am. 18 ans euh, fii ak 2023 euh, dañoo wala 2024 dañoo ngir ñu mën a voté mu mel ne am na coow bu rëy bu ci am parce que euh, opposition bi jàpp nañ ne ñii di état bi ñi nga xamante ne jàpp nañ ne ay ndaw lañ war a am ay at 18 ans wala boog am atu voté ci at yooyu ñu jëm bëgguñu ñu voté parce que jàpp nañ ne ñu du ñu ànd ak ñoom donc mu bëri coow bu ci am xëccoo bi primo votant ñi naan ñi war nañoo voté ak ñi war nañoo voté war nañoo mën a am certificat résidence ñi naan certificat résidence mënu ko mënu lijjanti mbir mi donc coowal ay fichier Sénégal ci li nga ni juste lu lu yomb defar la ci wàllu ay fichier wu lu jëm ci carte d'identité ak wàllu carte électeur yow ban ban gis-gis nga ci am à chaque bi xuloo bi bëri si man li ma la ci mën a wax rek mooy lenn moo di gënee jël ay ndaw di leen tàggat ba ëllëg ñu yor réew mi dafa am benn philosophie africaine boo xamee ne dafay wax ne Afrique dangay ngay pour tous la da ngay tàggat sa ay njaboot dangay am lenn loo xamee ne danga leen di jël ba ñu màgg pour bés boo màggatee amuloo ay bëñ ñu lay mën a xool ay ruy xoolal xale yi nga xamee ne au nombre de deux cent nangam mille xale yoo xamee ne dañ war a examen te amaguñu nu mu tuddati carte euh, d'identité amuñu bulletin de naissance amuñu extrait de naissance te a chaque fois bu ñu demee ba ci échéance su examen day am rek benn euh, justice bi mooy jóg rek daal di def quelque jours yoo xamee ne dañuy jël ay kii fichier dindi ci dégg nga te deux ans yëpp duñ leen mën a résorber mooy li ma wax léegi te nga ne brossé naa ko moo di que tey jii ki nga xamee ne heure bi ñuy wax nii mu nga ca salle d'accouchement ba dénga xale bi juddu si fekk suñu fi kooku euh, acte administratif bi nga xamee ne sage-femme bi war na ko def ba kii ju mel noonu war nañu mën a fexe ba jël. papier boobu yóbbu ko mairie ñu transcrire ko ñu am benn fichier avec les technologies modernes dégg nga daal di ko informatiser ñi nga xamee ne ñoo nekk fële war nañu trouver une solution mais c'est pas viable une solution pour daal di euh, defal leen ay jugement dégg nga pour ñu daal mun a remettre à jour suñu fichier ak suñu registre yi nga xamee ne dañ nekk ci mairie yi sur tout le territoire sénégalais sur tout le territoire sénégalais yaa am problème de euh, d'extrait de naissance am na yenn yoo xamee ne sax léeg-léeg sax da ngay bugg a wuti euh, li ñuy wax euh, casier judiciaire ñu ne la indi sa carte d'identité pour mu gaaw donc yooyu yëpp dañ lay tëj kaso sax sa casier judiciaire duñ ci bind duñ ci bind sax li nga xamee ne moom moo nekk ci euh, li nga xamee ne moom moo ci kii alors administration bi nga xamee ne dafa lajj ci côté boobu boobule amul benn combien d'officiers d'état civil ngay dégg ñu naan dañu war a jóg pour jéem a auditer fichier bi dañu war a jóg te gis nga communauté économique européenne joxe woon nañ fii ay des sommes pour mën a régler ce problème la waaye am kayitu juddu <laughs> sénégalais yi dañ ko dañu foog ne kii la kayitu euh, tamaate loxoti booy jëndi la te kayitu juddu dafa am ne day topp nit kii mooy base bi mais problème bi moom mooy man problème Sénégal moom mooy ñu ne nit ki mu déposer li nga xamante ni mooy carte d'identité partir ci li nga xamante ni moom mooy kayitu juddu alors que se c'est normal que nit ki bu bu bu amul bu musul déposé boobu mooy seul moyen bi nga xamante ne moom moo li ko li wane ne kii euh, judd na dat sàngam fii la juddoo donc bu ñu ba ne loolu nikki mun mënut see andi andi kii est-ce que nekkul njuuj njaaj moom moo am ci suuf moo war a ñëw nit ki mënoo andi rek certificat wala boog euh, extrait de naissance bu mun see déposé quarante mille du njuuj njaaj hmm. du njuuj njaaj bu ci nekk hmm. bi Sénégal nekkee ba tey administration Sénégal ba mu nekkee ba tey hmm. bulletin d'information bulletin de naissance bokkul ak extrait de naissance da ngay gis extrait de naissance moom la lay laaj tous les jours daté de trois mois ah, mois de trois mois pour que nga mun a daal di def ay acte officiel dañ lay jox bulletin de naissance ne la denc ko ça te permet bulletin ça te permet boo bëgg saa yoo bëggee wut extrait ñu daal di jël li nga xamee ne données yi génne la extrait de naissance nga daal di mun a bindu normalement te ci biir yëf yi man li ma ci li nga xamee ne moo ma ci gën a gën a mooy le problème bi nga xamee ne moo nara a suñu problème quotidien yi ñuy dund ndaxte pour régler problème boobu il faut que administration bi daal di gis teg une mesure d'exception pour ñu régulariser ñi nga xamee ne amuñu kayitu juddu am na ñuy dund ba dee amuñu kayitu juddu cinquante ans masuñu am kayitu juddu donc ce qui veut dire que da ngay judd ba retraité doo liggéey doo liggéeyul doo soxla kayitu juddu kayitu juddu balaa nga koy soxla dafay fekk ngay tukki wala nga jékki-jékki ñuy ramas bu ñuy ramas dégg nga nga daal di wuti ji identité dafa am benn phénomène boo xamee ni dama koy rappeler gis nga euh, temps bi nga xamee ni ci la ñuy soog a jël suñu indépendance ak temps bi nga xamee ne amuñu indépendance gis nga problème de sécurité ak identité pour nit ñi kii leen dangay gis à chaque fois bu fekkee ne cinéma yaa ngi daw su fekkee ne am na ay manifestation cinéma bi day commencer vingt di daw di daw ba 22 heures nga jëkki jékki daal di gis auto police ñu tuddee woon ko pañe à salade muy ay car rapide yoo xamee ne bopp bi dafa weex affaire yi bleu dañuy ñëw ba ci bunt cinéma yi daal di gaare des fois dañ daan gaare sax nga gis nit ñi daal di daw foog ne dañ leen di ramas ñu daal di taxaw xool dégg nga daal di gis te bu temps boobu délinquance bi demeewul woon noonu parce que c' des des des des actes de dissuasion yoo xam ne préventive yoo xam ne ñu ngi ko daan def mais léegi bu nit deewee fi balaa police di ñëw deux heures de temps balaa sapeur pompier di ñëw deux heures. Mm-hmm. dégg nga te pourtant loolu ngay gis noonu yëpp moo di que ni c' la démission. Mm-hmm. tu vois du citoyen sénégalais. démission wala boog euh, responsabilité ñi nga xamante ñu ñooy euh, autorité administrative parce que lu mel ne ñu war a nekk ci mairie war a gérer lu war fichier ñoo dañoo war ne ñoo xamante ni dañoo jàng wàllu administration mais léegi léegi gis koo xamante ni neex wala boog yaamaroon yaamaroon tàccul ba ba may dem fële ma jël teg la jox la bi nga bind mu nekk lu am importance yoo moo war a nga gis ñu naan dem naa déposé ji euh, kayit nga ne non fichier bi yaa kenn yéen a bokk numéro du genre donc problème yooyu est-ce nekkul ne ñun euh, administration Sénégal ci boppam ñoom ñoom ñoom ñoo xamul lan mooy lan lan mooy lan mooy sensu papier yi nga xamante ni moom mooy kayitu juddu quarante ay certificat résidence bañ jàpp sax ay nit ñaari Guinée ak ñaari Mali yoo xam jàpp nañ ci ay fraude ah, ci ay certificat de résidence ni mooy tuba li ñuy wax toujours rek rigueur bi nga xamee ne moom la ñu war a protéger non les actes administratifs parce que sooy def sociologie de l'administration mm-hmm. da ngay xam ne gis nga les actes administratifs yi nga xamee ne moom la nit ki war a def ak war a nekk li nga xamee ne mooy carte d'identité bi ko topp depuis premier jour bi mu yuuxoo ci taabalu euh, docteur ba ak ba nga xamee ne ca lay génn àdduna dafa am ay actes yoo xamee ne dañ ko war a suivre te ci biir loolu dafa am benn pro un problème d'éducation problème d'éducation bi mu ngi jóge ci d'abord ki nga xamee ne mooy kii jur doomam ak ci ki nga xamee ne noonu la suñu administration bi parce que nous sommes une société euh, matriarcale donc ce qui fait que yow bu fekkee ne sa sa sa doom juddu na ngay jigéen su fekkee ne da nga am jëkkër sa jëkkër kese moo mun a jóg dem euh, kii la dem euh, dem déclarer la balaa ngay mun a déclarer sa doom dafay fekk nga nekk un enfant naturel mm-hmm. donc ci principe yooyu nga xamee ne moo fi nekkoon mooy def que ne da ngay gis bu fekkee ne nit ki doomam a ngi juddu ñu daal di ne ko war nga fay vingt et un mille war nga fay trente mille war nga daal ngénte tiitaange googu ak yéeg yooyu ba nga xamee ne su amul moyen yooyu dañ koy jox xebe mu daal di ne lii après laa koy def mm. après laa koy def fàtte ci dugub ba genn wàllu Sénégal yëpp yëpp yëpp recensé wuñu leen nag mm. dañuy wax rek ne bon kii doomam juddu na judduwul kii eh, déclaré na ko déclaré wu ko am na ci ñoo xamee ne nag dégg nga depuis des générations et des générations seen kër dañu fonk li nga xamee ne moo di nga juddu ñu wutal la kayitu juddu kayitu juddu bi euh, maire bi ak mairie bi du ñëw taxaw naa leen kaa leen bindu pour kayitu juddu mbir mi population yi ci seen bopp boo amee doom da nga ñu daal di ne la sage-femme bi bu la joxee sa certificat de médical boobu mu lay jox noonu de naissance certificat de naissance bi moom ngay dem yóbbu ko ñu transcrire ko mais loolu c'est simple comme bonjour c'est pas parce que jànguma école mun nga jàng alxuraan mais nga daal di bind sa doom am na ñoo xamee ne dañuy toog daan la de toutes les façons suma doom bi bu ma paree dama ko yóbbu ca daara ja bon daara ja da nga affaire lu yomb la mbir mi soo koy wax dafa dafa sore mais c'est pas une raison pour que ñi nga xamee ne ñoom jiital nañ leen ñu daal di jóg nag tëdd di dormir dans leur laurier pour laisser passer dégg nga cet acte la qui ma foi est vraiment un acte boo xamee ne de discrimination et d'acte boo xamee ne c'est criminel donc kon yow su ma déggee sax kon da ànd ak état bi li mu ne du nangul mukk opposition bi ñu ne dañuy jël nit nga indi benn certificat euh, extrait de naissance rek ñu bind la donc il faut nga indi comme ni ñu ni ñu koy defee saa su nekk euh, Sénégal ba Sénégal nekkee Sénégal ba léegi këyit juddu la ñu amee li nga xamante ni moom mooy carte d'identité soog a mën a am euh, carte électeur ñu suivre li nga xamante ni moom mooy les norme administratives. extrait de naissance. Mm-hmm. boo ko amee dafa am registre bu mu jógee. Mm-hmm. extrait de naissance. ci la ñuy amee carte d'identité mhm. il faut que wax ji leer. donc certificat de la ñuy amee carte wala extrait de naissance pour pour. extrait de naissance la ñuy amee carte d'identité. Mhm. extrait de naissance la ñuy amee carte d'identité soo demee ci sa euh, carte d'identité. Mhm. da nga cay gis ñu daal di la ne numéro de d'extrait de naissance. numéro extrait bi dañ ko bindee. kooku lañ lay joxe extrait waaye euh, nu mu tuddati duñ la jox euh, carte d'identité ci bulletin de naissance dégg nga bu baax li ma la wax de mu daté de moins de trois mois léeg-léeg nga gis ñu indil la photocopie sax mais photocopie suñ la kiyee day tax ñu mën a xool kii bi mais gis nga li nga xamee ne wax ji wax ji wax ji mooy dafa am euh, photocopie extrait yoo xamee ne ak extrait yoo xamee ne fa mu ñu nekk amatul résister résister dañu yàqu dañu réer dañu kii dañ ko conservation ba munatul dox. voilà donc mu nekk lu am importance loo xamante ni je pense que euh, ba nañ ci bàyyi xel ci li nga xamante ni moom moo ñeer wàllu fichier yooyu ñu jëm ko informatiser numériser ko ba nga xamante ni léegi dina yomba lijjanti aussi li nga xamante ni mooy wàllu. Euh, carte d'identité yi aussi je pense que monsieur Fall a été euh, précis ci li nga xamante ni moom la doon def temps njëkk li ñuy déposé quarante moom mooy avec euh, bulletin de naissance mais pas avec li nga xamante ni moom mooy certificat de naissance je pense que avec coow li am ci diggante opposition bi ak nguur gi je pense que dañu trouvé solution pour ñi nga xamante ne dañoo war a. benn précision. Mhm. bulletin de naissance. Mhm. ak certificat de naissance lan mooy différence. différence bi lan mooy différence bulletin de naissance bulletin de naissance c'est la moitié extrait de naissance nii lay toll paak waaw nii lay toll c'est euh, benn page lay doon mm-hmm. extrait genn wàll la euh, bulletin mm-hmm. genn wàllu page bi lay doon mm-hmm. bon évidemment journal bi moo ëpp kii bi mais boo indi woon feuille de papier moo woon la ne la nu muy toll ak moom la ñuy wax bulletin kooku c'est valable tout le temps mais duñ ko laaj sur le plan administratif mm-hmm. jamais mm-hmm. extrait ñu ngi la koy laaj euh, moins de trois mois mm-hmm. mais ci extrait bi mooy li ñu bind ci registre bi ak mention yi nga xamee ni ñoo nekk dafay am ay mention soo si amoon jabar sax tas dañ ko ci extrait de naissance dañ koy bind ci extrait de naissance léegi ñun notre problème fii Sénégal moo di que ni tant que jëluñu ñiy juddu tey ak suba ak gannaaw suba ñu daal di leen informatiser xam nga donc sauver nañu fichier bi pendant des décennies jusqu'à l'apocalypse bi nar a am ay euh, de deux mille cent deux mille cent trente cinq xaw ma daal dinañu fa fekk wala de li nga xamee ne moom moo ñu dal nekk ci mairie yi nga xamee ne ñoo fi nekkoon dans les sept euh, communes yi nga xamee ne ñoo fi nekkoon sept régions yi mairie yooyu registre yi fi nekkoon avant indépendance après indépendance registre yooyu dem a dem ba ci problème de conservation mu yàqu mënatuñ leen reconstituer loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi ko mm-hmm. combien de personnes lañ combien de gens lañ et puis aussi ñu éduquer nit ñi pour que soo amee doom nga daal di dem déclarer ko mm-hmm. voilà parce que balaa ngay déclarer mm-hmm. jigéen balaa muy déclarer dafay fekk moom euh, amul jëkkër ci foofu sax lay mën a demee ci législation Sénégal ci foofu sax la mën a jëlee eh, bu fekkee ne

mooy eh, yi ñu jot a amagum ci li nga xam mooy fichier yi ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu accident yi Sénégal temps yi eh, accident yi bëri na semaine bi ñu ngi waxoon eh, ci yoon Touba bi set moor ci li nga xamante ni mooy yoon bi barki démb ci li nga xamante ni moom mooy Kaolack benn camion jaar ci kaw taxi rey fa quatre personnes donc accident yi fi mu nekk nii commencé lëmbi biir réew mi ci à chaque fois camion ñu leen di pointé pointé du doigt donc ndax li nga xamante ni moom mooy li ñuy wax ne réewande ci kaw télé bi wala bokk manque de responsabilité ñi nga xamante ne ñooy yi lu ci mel ni police lu ci mel ni ñi ñuy jox kii ñu mën a gérer circulation ñoom ñoo deful seen liggéey waral euh, à chaque fois ak yi di wéy di am te boobu lay mënu trouver li nga xamante ni moom mooy solution yi. li ngay gis noonu yëpp politique la rek ndaxte dafa am dawal oto dafa tëdd ci code de la route. Mm-hmm. ak respect du code de la route. Mm-hmm. comme nag indiscipline. caractériser moo am dama leen la waxuma senegal Afrique nit ku ñuul moo xamul moom moo moom ngay wax ne ko gis nga am na benn bés benn tubaab ne ma gis nga nit ku ñuul yi bu ñuy euh, bu xoolee nit ñi ñuy dox mm-hmm. dafay mel ni day seen dàll yi day simmeeku di dox ci seen wet ñoom ñuy doxee tànki neen topp da ànd ak dàll yi ndax dañuy dox di zigzag ak di kii yooyu mënuñu dox jub indiscipline boobu nga xamee ne moom la ñu malien yooyu fekk see booleeg indiscipline ya nekk seen dëkk moom la ñuy jël ba nga xamee ne dañuy manquer de respect à l'autorité publique mooy gendarme yeeg yéeg yu mel noonu da ngay gis ñu ne ñoom dañu am benn couverture diplomatique boo xamee ne dinañuy rouler sur le territoire sénégalais sans problème mm-hmm. loole buñ leen laajee bu leen policiers yi kii sax ay reewaande lañ leen di wane mm-hmm. man gis naa fi ay jugement yoo xamee ne ay euh, chauffeur malien la yoo xamee ne dañuy kile gis nga diggante Tamba ak Tamba ak Kaolack mm-hmm. da ngay gis ñi dëkk foofu ak villageois yi dañuy wax ne dañuy fa def ay doodaan mais doodaan yi dañuy ñëw ne leen waru leen ko fa def vous n'avez pas droit parce que fii c'est l'acte service national ak yeeg yooyu gendarmerie ñëw di di def ay répression mm. bu ko population bu population yi defee ay balises pour que euh, booy jaar ci kii bi euh, vitesse limitée à cinquante kilomètres heure mm. vitesse limitée à 60 kilomètres heure léegi Sénégal moo xamatul loolu mm. priorité à droite moom la Sénégal xamatul gis nga diggante accident yi ak problème infrastructure yi ak problème mu dissuasion. Mhm. suñu émission bi jiitu maa ngi lay wax ne la Sénégal rek rek rek ngay gis dëkk boo xamee ne du ñu la jàpp ci limitation de vitesse. Mhm. mais est-ce que nekkul li ñu li ñu jàpp naan boo waxee chauffeur mooy la. code de la route euh, euh, en ville nga ko mën a respecté alors que fii si àll bi mënoo fay def code de la route est nekk loolu la ñuy jàpp seen xel ba ba mujj mu nekk loo xamante ne dañ ko mujj euh, daal di ne dëggal def ko loo xamante ne c'est obligatoire ne boo boo génnee Dakar rek bu la neexee nga bañ a suivre li nga xamante ne mooy code de la route limitation des vitesses ligne continue ndax am nga droit def ci li nga xamante mooy doublé wala amoo droit doublé si est-ce que def si seen seen conscience yi ba ba ba mujjee yóbbee leen yenn problème yi. parce que booy daw sur route mhm. mënuloo passer cent kilomètres mënuloo yegg cent kilomètres d'heure mhm. ah, dafa am ay route spécialement aménagées yoo xamee ne dinañ la wax vitesse autorisée mooy cent dix kilomètres heure mhm. kooku c'est par endroit sur les routes nationales te yaakaaruma fii Sénégal sax mu loolu am fi parce que une route comme suñu route yii quatre-vingt-dix kilomètres heure compte tenu de l'état des kii quatre-vingts kilomètres heure nga daw ba jàll gis nga bu loolu nga gis ñooñu di ko wax noonu mooy ñàkk xam lan mooy oto ñàkk xam confirmer encore que ni oto xajul ci nit ku ñuul ndaxte ci biir national bi soo gisee ay euh, voie euh, ligne continue ligne continue di nga ay virage ak ay panneaux yu ñu fa def nga de respecté ko nga bañ ko respecté fa la accident yi gën a mortel foofu lay amee. Mm-hmm. ba de la preuve da ngay xool axe Tambacounda ak euh, kii. Euh, Kaolack Dakar foofu y a mille kilomètres yoo xamee ne euh, chauffeurs yi ñu ngi koy def foofu dégg nga te ñi bon taxaw bañ leen war a def parce que une oto boo ko yoree. pendant deux heures de temps war nga mën a taxaw trente minutes pour daal di kiyaat yëpp yi faay bi yëpp ci kii bi noonu ngay gis noonu yëpp dangay ngay dégg naan la chauffeur bi daf doon nelaw endormissement ak yeeg yooyu yàgg ci li nga xamee ne mooy ci parce que soo yàggee ci oto di dawal da ngay sa réflexe yi dafay wàññeeku. Hmm. réflexe yi nga xamee ne dafay wàññeeku mooy comme boo naanee sàngara rek. Hmm. dangay foog ne ci ngay gën a fort ci ngay gën a mais balaa boo gisee ak diggante bi ngay gis obstacle yi ak bi ngay freiné. dégg nga dafay mel ni dafa am lu lay téye ba nga pare yaa ne waaye bës naa frein bi fekk yeggagoo sa tànk bi sax yeggagul ci frein bi fekk sàngara bi moom la kii. Hmm. bu fekkee da nga da nga da ngay nelaw aussi c'est la même chose. la responsabilité police gendarmerie ñi nga xam ñooy nekk si côté parce que euh, boo xasee ba génn Dakar ak naan euh, gendarmerie ñoo fay nekk wala boo ñi nga xamante ñooy service douane donc ñoom ban ban ban. Euh, taxawaay lañu ci war a am parce que à chaque fois si kii bi ñoom la ñuy romb boo waxee ñu ne noo man chauffeur boo wax dinaa noonu ñii da ngeen graisser ñu bàyyi nga dem est-ce nekk loolu aussi mënuñu see jël ay matuwaay parce que bu demee ba chauffeur naan kii boo ko graisser ñii boo leen graisser ñu bàyyi nga dem euh, jotul fu nekk nii ñu ñu lijjanti mbir moomu euh, ba accident yi mën a wàññeeku. poste de police yi nga xamee ni ñoo jalonné route nationale yi. Mhm. en général accident yi fay am moo di que ni euh, ñu fiir benn douanier. Mhm. fiir benn alkaati mais fa affaire ya di amee. de en général daf leen di sore boo xoolee statistiquement day sore ñoom fa ñu nekk ak ci mel noonu ndaxte boo toxee ba boo taxawee ba nekk ci sa oto yaa war a woon nekk sa policier sa gendarme pour plusieurs raisons benn bi dafa am ñoo xamee ne yaa ngi leen bàyyi sa gannaaw benn bi dafa am la conscience boo xamee ne war nga ko am pour que nga daal di war a mën a yóbbu bu dee dangay ngay ay nit mais soo xoolee statistiquement actuellement nii camion yi ñuy wax ne camions yi ñooy def géej yi mm. malien yi euh, moyenne d'âge bi dix-huit ans vingt ans la mooy ñi nga xamee ne ñu ngi nekk ci kaar yi fii suñu kaar yi nga xamee ne ay booy yoo xamee ne ñu nekk ci camions yi booy yi vingt trois ans vingt quatre ans dañu inconscient plus aussi les camions là léegi électronique la bokkul ak camion boobu nga doon gis mu daal di def ngooñ di daw mm. dégg nga bi di valser di dem di yéeg yu mel noonu camions yi ñoo gën a gaaw oto yu daw yi mm. donc da nga leen di gis ñuy def man li ma gis constaté ko ci Sénégal gis nga dem dikk yi ngay gis nii dem dikk yi rek la camion malien yi ñemewu la jege te dem dikk yi aussi am na ci yenn chauffeur yoo xamee ni bu ñuy dawal ci àll bi dangay gis dañuy mel ni ñuy ñuy bëgg a rey seen bopp àll ak yu mel noonu mm-hmm. waaye toujours Euh, bu ñu demee ba reçu sax di nga leen gis parce que am na si sax ay escale yu ñuy faral di def pour daal di respecter le minimum de sécurité parce que xam nañ ni oto yi dafa am mouchard oto bu am mouchard xam nga mouchard mooy lan. Hmm. dafa am benn euh, tableau boo xamee ne dafay wax euh, oto bi à tel endroit hmm. waxtu bi mu doon daw comme genre boîte. Hmm. Euh, boîte d'information. boo xamee ne moom la ñuy kii ne accident au camion. accident camion bu am fii Sénégal doo gis <laughs> ñu génne kart boobu hmm. lu tax ce qui veut dire que ni muy ci autorité yi dafa am ay failles dafa am ay négligence du ngi taxaw fii di wax naan ay permis à point mais permis à point ak yooyu ñuy war a def dafa am ay normes yu ñuy taxawee hmm. dégg nga te normes yooyu moom la ñu war a gérer te gis nga aussi ma joxati la beneen beneen euh, souci ñu ngi wax ay terre bi dafay daw ak kii yu mel noonu mm. dafay daw vitesse grande vitesse mm. mais gis nga bu ñu ko jëlee di ko dawal pendant dix ans bàyyi ko noonu ay jéey yu garaaw rek nga fi gis xam nga lu tax mm. parce que gis nga TGV yi daw Europe TGV yi suñu dawee jógee Paris dem Marseille def ko ñaari yoon ñetteelu yoon ba dem nañu xool ba gis eh, raay bi nga xamee ne fa la mm-hmm. jaar am na ay usure yoo xamee ne ñu nga fa nekk mm-hmm. essier yi téye kii bi da leen di dugal ci benn kii ñu daal di leen eh, roofaatal yeneen kii yu bees tax dem changer raay bi nga xamee ne bu fa jaaraatee bu kiyee rek eh, train bi dafa naan fii ma jaaroon ni am na benn creux bu fa nekk am na benn bos bu fa nekk mm-hmm. donc maintenance boobu nga xamee ne moom lañu war a am nii dama yaakaar ne bu dawee deux ans trois ans dina daw ci électrique bi waaye mujj gi gasoil beeg loolu lay mujjee eh, di dawee gasoil sax au moins mhm. dégg nga eh, yenn yi dina mën a atténuer li nga xamee ne moo di accident yi kooku mhm. dama koy wax nii pour que gars yi ñuy déglu ñu xam ne eh, te train à grande vitesse ak oto yi ñuy gis ni dafa ñoo raw sax avion mhm. parce que électronique la donc comme que électronique la dafa am ay euh, comportement du conducteur boo xamee ni moo war a am mais euh, bu conducteur bi di jubal ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci euh, kaaraange gi dégg nga muy policier yi muy direction de des transports seen seen compétence dafa des. compétence bi est-ce que aussi du jël aussi ñu waxtaan ci diggante ñaari réew yi Sénégal. taal nañ ay oto yu bëree bëri yàq oto yu bëri ñee tamit def ko est-ce que loolu bu continuer ndiit moo ku ci nekk di wane ne yow euh, sa morom boobu boo ma defee di daal def est-ce que du dem ba day ñagasal li euh, euh, problème bi ci beneen façon bu ay songu oto ak yàq oto xam nga loolu li nga wax ni dama la ciy wax ne waxu daanu ko sa daanu ci saret la ndaxte exemple Mali mm-hmm. exemple Mauritanie mm-hmm. ak Sénégal mm-hmm. gis nga événement yi ressortissant dëkk boo boo nasaxal ressortissant sa dëkk yaa ngi mettre en danger ñi nga xamee ne ñoo fa nekk sa ay compatriotes mm-hmm. loolu dafa mës a taxaw li koy encadré moo di que ni gouvernement beeg nguur bi ñoo mën a fexe ba def protection ressortissant yi nga xamee ne ñoom ñoo nekk fële dégg nga ñun tamit ñu daal di protéger maliens yi fii mais dafa am lenn loo xamee ne booy déglu revendication transporteurs yi mhm. euh, jafe-jafe ak charte yi nga xamee ni moom lañ leen di teg fële ci Diboli Diboli mooy frontière u Mali ak Sénégal frontière boobu noonu da ngay gis bambara yi dañ dinañ la teg ay daan yoo xamee ne boo waxee ñu ne la si t'es pas content tu vas Sénégal te ñoom dañu am benn vision ci sénégalais yi ma euh, Gambie ngay gis nii da ngay ñëw ñu ne la tu fay ça wala nga daal di kii nga daal di def li ñu la wax ñu leen di sonal te ñoom bu ñu ñëwee fii du ñu am benn jafe-jafe da ngay gis nga wax naa la ne gendarme yi ak policiers yi da nga leen di laal ñu daal di la indil ay jafe-jafe yow sax ñu wàcce la wàcce policier bi ndax policier bi def na ki eh, ñu am ay comportement eh, indiscipliné par rapport à non force de l'ordre hein et de sécurité dégg nga sous sous réserve que ni dañu am ay protection diplomatique inter état yoo xamee ne moo leen war a mën a permettre ñuy def ay reewaande yoo xamee ne du ñu respect ñëw nag fekk ñun ba tey discipliné wuñ ñu ñëw dugg ci sëmbaxloo bi mm-hmm. combien de combien de camions euh, kii euh, maliens ñoo nekk victime de accidents wala ñu rey ay euh, xale yu ndaw dans les village ak yéeg yu mel noonu yow bu Kaolack bi rek nga gis autorité euh, gouverneur nee na da dafa leen di ay duñu daw démb ak tey mais après démb ak tey qu'est-ce qui va se passer mm-hmm. dégg nga boo boo ñëwee ba gis leen bu ñuy daw ci biir euh, Kaolack da ngay gis euh, bu dul embouteillage yi bu leen téyewul ñu daal di kii nii da nga leen di gis ñu yore benn kii bu ngand te oto yu bees lañ yore mm-hmm. dégg nga donc du xalaat sax que ni seen attelage bi détaché wu mm-hmm. alors ce fekk yooyu yëpp dégg nga bokk ci li nga xamee ne rek euh, mooy négligence su autorité yi gis nga dëkk bi dañ ko war a repenser waat ndëppal ko mm-hmm. daal di organiser waat daal di defaat une administration boo xamee ni mm-hmm. administration bi day commencer ci ñun pour di ñu normer di ñu mettre ci ay euh, kii yoo xamee ne comportement yoo xamee ne dafay kii ñu daal di defati aussi ay instructions civiques yoo xamee ne dootul nekkati comme jamono bi gis nga gis nga léegi nii ma jox la benn benn euh, exemple boo xamee ne rek mm-hmm. gis nga commencé ne waat nañu xaat di wax ne compte tenu de la pandémie bi dégg nga waruñu euh, aaye euh, comme màggal geeg aaye ay kii manifestation religieuse yi mm-hmm. donc ñu ngi commencé di indi ay kii yoo xamee ne bu ñu demee ba kii pression populaire bi dafay dem ba nga xamee ne nguur gi day reculer mm. donc euh, waxuma ñu indi dictature waaye nguur boo ko waree téye wala nguur boo bëggee ñu fal la foog nga am fit mm. bu bëggee ñu fàll foo nga am fit bëggoon nañoo nag continuer ba kan mais ñu ngi wax nañu li ñu cëraloon ci waxtu ah, jeex na donc monsieur Fall kon ban message lañ ngay lancé euh, li nga xamante ni moom mooy euh, état bi ak askan wi ci li nga xamante ni mooy xeexu mbas mi jamono ci man li may euh, wax état bi rek moo di que ni nañu revoiraat xoolaat seen copie ci ni nga xamee ne noonu la ñu war a gérer mbas mi ci ni nga xamee ne noonu la ñu war a jëflanteeg ak population yi mm-hmm. ci ni nga xamee ne noonu lañu ñu war a repenser la conduite des destinées du pays conduite réew mi fi mu jëm ñu xool ci lan lañ koy jëmale ñu bañ a rek daal di toog dégg nga euh, toog ci pegg bi daal di ne côté bii ci biir dëkk bi euh, kii na waaye mokk na mokk na donc euh, mais Sénégal dégg nga village yi ak yeneen gox-goxaat yi ci la ñu bokk mm. te ñu moytu rek mu bañ a am li nga xame ne mooy politique wu boomerang mooy di ñëw di jël nit ki parce que bis nga benn janax janax xam nga du defee dara mm. mais janax boo ko acculé ba mu sës boo moytu dalay song boo moytuwul da lay song kon màttu ju nax moom daa baaxul ci kenn donc leen jaajëfal ne yéen euh, tafoo li mooy Rewmi TV seen émission euh, actu réew mi donc leen jaajëfal jaajëfal suñu ay techniciens yi nekkoon ci ginnaaw caméra yi ñu nekk aussi si montage bi yéen aussi yéen ñuy suivre euh, ni moom mooy Rewmi TV def seen ay abonnement ci li nga moom mooy suñu plateforme yi ngeen gën di topp suñu ay émission donc leen jaajëfal leen jox di daje si beneen jotaayu émission actu bi réew mi ak si yeneen actualité fii ci Rewmi TV jërë ngeen jëf